mbokk yi ba tey ñu ngi toog ak ki nga xamante ni mooy Abdou Diouf Abdou Diouf kenn du ko présenté waalo Abdou Diouf géejawaay Abdou Diouf génn àdduna Père Balla tey nekk sarax si ban yëg-yëg nga ci am. waaw mais di ko jaale di ko jaale ahlu làmb yëpp parce que bala Gaye moom avant école de lutte Balla Gaye ikri waal la woon te boobu defe naa ni man falaa nekkoon yàlla def ni bi mu ubbee école bi. chaque jour mu woo ma ni ma Abdou ñëwal jàppale say rak chaque jour daal lu rafet lay lay yéene ci man toog nañ fi blouson jamono yi blouson sol ko jafe na mu ne Abdou yow mbër ngay nekk yëkkati blouson am jox ma ko kon Balla yi man maa ñàkk maa ngi koy jaale at ak lu làmb di ko jaale ñëpp di ko ñaanal fi mu jëm gënal ko fi mu jógee parce que àdduna moom noonu la yàlla moom bu soxlaa ñëpp ñàkk mais vraiment Balla Gaye euh, ñu ngi koy ñaanal daal waaw parce que fan yële paase rek. ñëw na ma taal sa moto yóbbu ko ba pàkk ba mu toog mu ne ma Abdou yow sama doom nga sama doom nga yow champion nga jàppale mu la dara vraiment moom mu mënul mere kenn bala waaw bañ na ko bi ñuy bëre sax bi ñuy bëre sax euh, mbër mi nga xam ni maanaam bu la ñaanalee da ngay am ndam bu meree sax soo demee safaat mu ngay am moo tax daal bala vraiment suñu suñuy wax ci moom duñ fi jógee waaw ñu ngi koy ñaanal daal fi mu jóge fi mu jëm jóge gënal ko fu mu jóge waaw di jaale ay doomam di jaale Moussa Ndour di jaale ñëpp waaw di jaale Youssou vraiment di leen jaale ñoom ñëpp ñoom Fama ñu ngi jaale ñëpp waaw. génn àddunaam ci lan la la fekk ak noo ko yëgee. waaw man biñ gisee bi mu génnee àdduna àdduna bi mu génnee àdduna ak e, ci ñetti fan yi gisee nañ bi ma xëyee suba teel lañ ma woo wax ma ko maanaam mu nekk lu ma lu ma lu lu ma bett waaw parce que moom bu toogee yow day wax wax ju leer di waaw génn àdduna bi daal xam nga bett na ma daal waaw mais nag àdduna moom noonu la waaw. ñu ngi koy jaale bu baax a di ko jaale ñëpp jërëjëf waay.